Mor Sarr nee na dernier match bu mu la gisul dafa découragé quoi. bu <laughs> dee ñu bëri dañ yaa tax mu gagné ñoo yaa tax équipe bi gagné wala. daal nee na am nga yaakaar si saison bii nii nii ñu jëm nii mooy deux mille vingt deux mille vingt et un di am contrat en en Europe. am naa ci yaakaar bu baax sax bu baax a baax a baax a baax a baax. baax incha allah <laughs> incha allah léegi rek. Will Tall nee na nga mos nga Bambilor quoi. Bambilor fa laa dëkk. ok. joué naa fa kay. Mhm. kii nee na ASC Magadan xanaa foofu nga football. waaw fa laa doon football Guédiawaye. Guédiawaye ok. non je tu style anglais mais tout pour jouer anglais anglais pour jouer Premier League. t'inquiète dinaa développé mat soo fay nee nga raar nu mu demee noonu. nee na ma raar. waaw. saa yi dafa yow tu pas trop internet quoi. ah. saa yi yow ban championnat nga nga bëgg débuter quoi genre championnat européen ba nga xam ne nee yow fa nga bëgg débuter pour franchir des étapes quoi. non man kay moom. amoo préférence. amoo problème ay championnat bu war a débuter man kay fépp fu mën a dem pour wane sama talent rek. saa loolu nekk sama dugg quoi. n'importe quel sax bi nag moo fa demee naa wane li nekk ci man rek. loolu hmm. man loolu moo am njëriñ quoi. waaw c'est vrai tu as parfaitement raison. Tidiane nee na lan nga xalaat si équipe nationale bu A bi quoi actuellement. lan ma laa xalaat équipe nationale A. waaw waaw waaw. ah gars yi ñoo ngi def ay résultats yu baax ah. Hmm. waaw te instant yii nii coupe lañ soxla te man yaakaar naa ne dinañ ko jëlee ci incha allah. incha allah. Hmm. ci année yi ñëw la. Mhm. kii nee na lan mooy sa secret sa passe ak sa vision de jeu bi loolu <laughs> sa nekk coach daaw moo ko def coach ma ko coach yee ko def ci man. Fall mhm. nee na noo Porto gars yi ñu ngi laajte de seen transfert. waaw Porto aw ma ak ñoom benn instant yii nii benn contact sax. <laughs> kan moo la annoncé woon foofu. pour dama fa xam nga dama fa demoon ay test dama fa defoon naa fa kan la si après confinement bi wala kii la daaw laa fa demoon. ah daaw pare avant dem Coupe d'Afrique la. ba ñuy préparé waaw ah, ok waaw. dem Coupe d'Afrique ba ñu jógee Togo la Togo. Togo baax na. général moom mi ngi kii de mi ngi posé question rek neen est-ce que booy seetaan équipe nationale doo gis sa bopp si équipe bi quoi si digg A bi xalaat un wala wala nga bokk ci ñu ci ñuy sol mooy équipe bi mooy dëkk bi. Sénégal booy Loppi ban club la nekk Loppi mi ngi académie Oslo centre de formation la comme ay jàmbaar ak yooyu. kii nee na Coupe d' Afrique deux mille vingt deux mille vingt et un est-ce que yaa ngi yaakaar ne di nga bokk si équipe bi. naa ci bokk sax incha allah. <laughs> na loppi deux mille dix sept votre tournoi Norvège loo fa jëlee comme expérience. tournoi Norvège deux mille dix sept dund beneen niveau bu bokkul ak ma nekkoon Sénégal xam nga deux mille dix sept maa ngi doon kade mhm. foofu c'est U21 la xaw ma Mm-hmm. De belle kam ur xam Mhm. tuuti. dëkk wéru Norvège na la ñuy jouer foofu ak gaay na la ñuy dundee yooyu noonu. kii na nga vidéo Pogba man waaw dama koy xool bu baax sax. Giron gars yi nee na <laughs> mooy juróom bi ñu la annoncé woon. non juróom kay dara. benn sama benn photo bi ma defoon sama compte Instagram ma nekk woon Norvège compte Instagram bay mhm. moom la gars yi jël moom la gars yi jël publier ko ne ma dama dem juróom ak yooyu noonu. <laughs> te demoo woon foofu quoi. musuma ma dem sax musuma ma dem. ban conseil nga ñuy jox yi bëgg bëgg jigéen <laughs> mooy dinañ ma rek. <laughs> vraiment tu es un très bon joueur techniquement tu es bien je le compare à Pogba nee na Pogba la lay comparé Sénégal euh, booy nee na nga am neex na. ndax Oslo neex na. waaw. neex na kay. bii nga jot a dugal jamono. jamono jamono dugal ma fi bii a jamono dugal ma fi bii. voilà yi am na ñuy poser question yi pertinente sax Asmalik Fall nee na yow. lan nga gis si Paul Pogba ba nga ba nga bëgg ba nga bëgg mu nekk ba ba nga def ko say dool quoi. ah Paul man dama gis ni sax. Mhm. Ah, xaw na am na lu ñu xaw a ndóol ci côté football ak yooyu noonu. Mhm. ak profil ak yooyu noonu te façon de jouer man ma neex quoi. Mhm. man Coucou Thierno. El Hadj Diourou nee na Oslo notre famille xam naa Oslo la nekk moom tamit quoi El Hadj Diourou ah. waaw nekk waaw. ok Ndiaye Ndiaye junior mooy laaj da nga am centre privé la wala. centre bi. ndegam la quoi ndegam centre privé la. waaw privé la kay. Ahmadou nee pourquoi Oslo est-ce que moo la njëkk ci académie yi. Oslo. genre ba ngay choisir Oslo quoi pourquoi nga choisir Oslo. ah Issa Issa Néko moom laa njëkk a suivre comme centre ci football nii nii xam dëgg la xamoon naa ay kii ay jàmbaar ay génération foot mais. moom moo gën a jege woon quoi pour ma def pour ma demoon ay test. Mhm. tey dem kay may dem foofu footballé comme tiro moon kenn amul kenn ku ma proposé ay club ak yooyu noonu. Mhm. Mhm. waaw kii tamit gars yi ñu ngi posé question pertinente Jésus Sow na. lo lo ci ci transfert Moussa Ndiaye bi quoi FC Barcelone bang ko gisee la la def quoi genre. wa contane rek. contane mhm. fier de la nga nek ko xam ne nekone sélection porter même couleur. di défendre mhm. dëkk bi. man mom ñu bokk sax chambre ci coupe du monde bi. Mhm. tey nga gis ko mu dem ci club yu mag yi. dañ ci am contane ma quoi. deug la. ndax ku ci sañon tay sa morom yëpp ñu koy dem ci club yu mag yi. tout à fait ay match wala ngeen daje ci sélection équipe A beeg yooyu ñëpp loolu la ñuy ñaanalante. Hmm. te yàlla baax maa ngi koy souhaité bonne chance foofu yàlla yombalal ko yëpp. amiin amiin amiin yow lan la la inspiré loolu boo ko gisee. ah loolu moo ñu wan ni kay affaire yi ñun ñoo ngi commencé def suñu liggéey nang-nang te dañ ko war a gën a mën a yokk. Hmm. te loolu tamit motivation la. Hmm. ba même lu ñun sax bépp ndaw bi nga xam ne ñun moo ñuy siiwul tey war na gën a mën a xam ne affaire yi o moomu ko liggéey moo koy joxe. dëgg la club yaa ngi fii ala yaa ngi fii boo liggéey rek ala lépp da la yomb après. dëgg la. Euh, Ahmadou ne lan nga jàngee si coupe du monde bi. lan laa jàng ci coupe du monde bi. waaw mooy coupe du monde bu 2019 Pologne ma ci jàng. ban expérience nga fa jëlee woon coupe du monde doo fa mooy comme niveau yi mu naan Moussa Dieng même d'Afrique yooyu yëpp ni ak niveau bo bokkul. Mhm. waaw te aussi indil na ma opportunité yu bari. Mhm. bari xam nañ la ci waaw ci na est-ce que yaa ngi entraîné tir tir penalty yi parce que daf ñu manqué équipe nationale quoi <laughs> <laughs> mooy sëriñ ñi gañe xam naa lay wax quoi. penalty man est-ce que nekkul bokk sama foor ndax sélection U20 yi sax gars yi maa leen dóor seen penalty. Mhm, mhm. Mhm, ça ce que mun bu fekkee c'est pas personnel tu peux juste nous dire que pourquoi sa test Europe yi réussir ko quoi problème xaalis la wala yow performant ah, loolu moom décision entre agent ak moom. <laughs> mënuma ci wax quoi man moom li ma maîtriser moom mooy man li may def terrain. Mhm. le reste maîtriser wu ma bu ñuy waxtaan du ma ko fekkee. Mhm. ça c'est vrai. j'aime ça frère sa bopp lu neexoon doo euh, yi ñu lay quoi remercier. jaajëf gars lu tax doo tontu message yi del tontu gars yi. <laughs> maa ngi leen di message yi des fois day bari. Mm-hmm. te man aussi tamit des mm-hmm. moo tax. Mm-hmm. ça c'est vrai. Demba que Moussa Ndiaye def na bu baax. Moussa Ndiaye est-ce que def na choix bu baax. Ah, mun naa ne def na choix bu baax ndax Barça club bu mag la. réewam la aussi tamit. dëgg la waaw mu ne comme foofu noonu laa ko mën a hmm. ba mu signé bañ ko laajee dafa ne Barça ça ne se refuse pas il a raison. loolu Barça du soxla kenn nga naan c'est-à-dire. <laughs>